di sant leen gërëm ci ñëw bi ngeen ñëw nii cette semaine tey epi puis euh, di kontaan di wax nag ne yéen dama leen di déglu dama leen di seetaan aussi bu lu bari parce que yéen a ngi def liggéey bu am solo dama leen ci sant leen ci gërëm di wax sénégalais yëpp aussi ñu bàyyi xel ci li ngeen di maanaam seen seen seen seen télévision boobu télévision bii donc nañ ci dëkk Sénégalais yi bàyyi xel bu baax ma kontaan ngeen ñëw fii ñu waxtaan ci tiis boo xam ni ba tiis boobu nag kooku mbirum yàlla la waaw dañuy dañuy delloo lépp daal ci loxo yàlla comme ni ma ko Wally Seck waxee comme ni ma ko ñoom Youssou Dieng waxee ak ñeneen ak ñeneen ko voilà quoi ma leen di sant leen gërëm bu baax bi ma ko yëgee lenn rek laa laa rappelé wu vraiment bi ma yëgee décès bi dama sant yàlla d'abord parce que euh, six derniers mois yi yi coon dund man ak moom ak mu Mamadou si ñoo ko daan nekk matin midi soir xam nga yàlla ko doxale noonu yàlla nag dafa yor tabloom di doxale comme ni ko ni ko neexee moom parce que moom moo moom donc si dernier mois yooyu yëpp ñuy waxtaan ci saayir ak ci baatin jaaga mi fi jóge tey moo ñu daan toggal añ tous les jours bu ñu añee ba pare toog waxtaan ci Balago TV boobu waxtaan ak coon waxtaan ak àdduna bi waxtaan ak sénégalais yi mais li nga xam ni moom ma marqué mooy bi coon Seck génne àdduna man dama ni dama xool jaaga mu wóor ma ni bu doon décision moom moom rek la maanaam moom moom décision moom bi coon seg génne àdduna ci minute yo yooyu bu doon ci ci ci coobare boppam daf koy topp xam nga lu tax ma wax la loolu parce que jaaga coon rek la xam jaaga coon bi koy takk suñu kanam booba temps jaaga xale la coon rek la xam coon rek la am coono ko xamal lépp ci àdduna ba mu jural ko woy woy way maanaam woy wu rëy woowu mu ko way ne ko jural nga ma ay ay ay ay ay lion ay gaynde yu yu dëgër jural nga ma aussi ay futanke donc kooku man dama rappeler bi mu jógee bi mu bi mu bi coon sekk euh, génne àdduna ma xool jaaga loolu laa jàngat man ma ci kanama mani kii bu doon sagoom bëggatul dara ci non seulement bëggatul dara ci àdduna mais coon rek la xam coon rek la am moo tax jaaga bi fi coon jógee ba tey moom jaaga yàlla woo ko ci wetam mais doo ko gis sax ci affaire affaire yenn yenn yenn caaxaan yi comme na ko coon daan waxe du dem ci ci affaire famille branché kii ki xamu ko parce que coon moo ko tàggatal boppam noonu coon moo ko yare noonu mu am yimaan boobu aussi moom jaaga yàlla na ko yàlla xare ajana ama tey euh, xol tooy na mais xel yëpp dem nañu xoolal li yàlla di def nga xam ne yàlla rek mooy yàlla amul kenn ku mu dul jël coon wax na ko avant muy dem neen suuf si ñuy dox guddeeg bëccëg amul suuf si kenn ku mu jël donc mu jël ko jël doom ji muumi tey subhaana taala jël jaaga nga xam ne yàlla xamul azar faalewul azar bëggul azar te toppatoowul azar moom li nga xam ne moom li nga xam ne mooy moom li mu tabloom daal la yor loolu il faut ñu bàyyi ci xel donc tey bu ma xoolee njàngat boobu ma am ci li ma lay wax nii ne la moom jaaga ci minute yooyu bu doon sagom mu dem ànd ak Thione Seck man loolu laa xool ci kanamam te loolu laa gis te xool jaaga ni mu dundee durant toute sa vie ba ba ba ni muy ba ni Thione Seck jógee ci adduna bi ñu ne boo xam ne adduna bi tekkiwul dara du dara yàlla na yàlla def fa ñu fa mu dem fekki borom këram boobu Thione Ballago Seck na nañu dund ci àjjanay firdaws yi gën a kawe yàlla nañu dund li nga xam ne moom la yàlla nam ma ci ñoom li nga xam ne moom la yàlla bëgg ci ñoom ba woo ci wetam moom subhaana donc man daal loolu euh, lu may lu may bàyyi xel la moo gisee tey nii mbir yi demee parce que dama jot euh, frère am ma pend sec mu ne ma bu ñu nekk toujours ñu nekk ci cadre subhaana mu ne ma xoolal ma grand ma ne ko waa waxal mu ma coon bi muy génn àdduna fekkuma fi man ma pende sek day ñu bokk ndey ak baay muumi bi muy génn àdduna man ma pende sek fekkuma fii Dakar Sénégal gi mu waaye muumi bi muy gaañu ba muy génn àdduna ma ngi ko fekk France ñoom fi mu nekk nii ñoom ñooy moom ak Wally Seck ak mbokk yëpp foofu waaw ñu ngi foofu di defar pour koor bi ñëw xëy na peut-être que ëllëg corps bi ñëw ëllëg wala d'après les renseignements yi ma jot parce que damay damay faral di daan dégg coon dem si yàlla si yàlla na ko yàlla xaree mook soxnaam si tey ak doomam jooju moomi yi dama ko daan dégg muy wax qualité maanaam qualité jaaga guddul tànk du dem ci yenn xew yi à moins mu doon na xew bu am solo bu am importance mu dem te bu demee du fa yàgg kooku maanaam coon daf ko tàggat ci ci iman man daal bëgg naa jigéen ju mel noonu man soxna su mel noonu bëgg naa ko lool te tànkam waxam bariwul tu sais man daan naa ñëw kër Thione Seck yendu fa kii ne jaaga daaw ma ko sax gis ci kër gi te pourtant maa ci kër gi yendu fa du mais parce que non et puis iman bi mu am mooy boo xoolee bu baax nga am jàngat nga xool kanamu kanamam moom leeraa leeraange boobu fa nekkoon yàlla may ko ñëpp de waaw dafa amoon euh, jaaga dafa amoon leer goo xam ni dafa nekkoon ci moom du loo xam ne nag daf koy wuti wala daf koy seet c'est très naturel yàlla moo koy moo ko móole noonu tàggate ko noonu te Thione Seck tout le temps loolu la daan wax ci moom donc muy aussi li ma xam ci moom mooy ku jullite teg yàlla ci lépp lu muy def def xolam nag ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi rek moom boo bëggee bëggal xolam ci li ma xam de wax ko wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ak bëggoon Muhammad sallallahu alayhi ko xam nga kooku jar a bëgg moom la def ci xolam moo tax euh, ñun ñëpp acteurs culturels yëpp artistes yëpp wax dëgg yàlla ñun ci bi ñu réunion démb rek suñu xel dal na ci moom waaye fekk na suñu waa ji de fekk na con de te dara du hasard xamoon naa ci affaire u hasard fekk na coon maa la wax loolu maa la wax loolu gis nga waxam jooju dafa am solo coon ci coon lañ koy xamee duñ ko xamee mukk ci kenaan seyal na coon barkel na coon xam nga li ñuy wax ne ki jiitu ci lëndam moo la moo mën a wax fi ngay toog coon daf ko jiitu ci lëndam gi pare woo ko ne ko ñëwal toogal jaaga mosoo ko dégg ci dara mos nga dégg jaaga ci ay yenn kii yeeg masul am lu ma ko xamee mu doon xale bu ndaw ba ni mu génne adduna nii wax dëgg yàlla yàlla rek moo tax may wax mosu ko dégg ci ci ci caaxaan mosu ko dégg ci yenn yenn kii affaire xale la woon ah booba temps defe naa ay quinze seize ans dix sept ans dix huit ans dix huit dix neuf ans yooyu la ko la ko la ko la ko la jafe muy taw rek di taw rek ndox mi di wàcc rek te taxaw moom mu taxaw ak coon nekk coon respecté coon ci métier parce que booba temps aussi bi ñuy bi coon sekk di démarrer ak Youssou Ndour mi musique dafa metti woon bi ñuy démarrer dafa que metti woon ki nga xam ni daf la daf la ñëw nga nga doon daan mu ak musique bi mu méttee ngay am ngay am ay ay doom mu lu muy muy téye doom yi yow ngay dem ba ay quatre heures cinq heures six heures du matin dama dégg jaaga wax benn affaire bu important mooy li mu daan gis coon sax bariwul parce que coon bu demaan tëggi comme ñun ñëpp mi ngi daan guddi gi lay dem ba cinq heures six mu ñëw tëdd nelaw bu yeewoo ay ay quatre cinq heures yooyu lay yeewu préparé waat demaat joué ji te jaaga ne li mu li mu daan gisante sax bariwul parce que métier bi foog nga am acceptation boobu moom jaaga dafa accepté jëkkëram ak liggéeyam ak métier muy musique bi mu daan def mu jàppale ko te noonu rek la ko mënoon jàppale maanaam mooy euh, acceptation boobu muñal ko ci loolu ba pare nangul ko loolu nangul ko kooku mooy jaaga nangul ko métier nangul ko bañ des fois bañ ko gis c'est normal te coon aussi ma déggaat mu wax benn affaire yoo xam ne boo xam ne lu bu am solo la nit ñi war nañ ci méditer bu baax mooy danaan tëgg ay soirée am yenn jigéen yoo xam ne comme ni mu ko xam nga nag ku ku amoon humour la moom ku mënoon a kaf la ku mënoon a fo ku mënoon a ree Thione Seck mu ne des fois am benn jigéen bu nekk ci soirée bi mu way jigéen ji miir jigéen ji xaw a keek yooyu mu ne mais jaaga daf ko daan gérer rek bàyyi mu dem ak baaxul jaaga jaaga jaaga jigéen ju spécial la woon ah waaw waaw amoon na yu ci xamoon tuuti rek mais xam nga feebar moom yàlla ko yora feebar nit nit a ngi toog nii ak yow xëy na feebar feebar bu metti mais du la ko wan du la ko wax doo ko gis xam nga loolu mbirum yàlla yàlla tànk mi ngi mi ngi def ngay dund mi ngi def aussi ngay feebar yàlla ñi fi des laa wax de yàlla bu kenn feebar yàlla na ñëpp wér waay yàlla na ñëpp ba yàlla def ñëpp wér ñëpp gudd fan yàlla nañ ñëpp gudd fan mais ñu jiitu ñooñu comme ci loolu lañ nekk muy alaaji coon sekk moomu ak euh, ajaratu muumi moomu ak ajaratu jaaga tey ah, nañ leen ñaanal fa ñu nekk yàlla teel leen boppam yàlla iral leen boppam yàlla uufal leen boppam parce que yàlla li ñuy wax ñi mu soxla rek lay jël mais ak moo bari ñi mu soxla yàlla tous les jours mu jël ay ay milliers de personnes ci àdduna bi loo ci mun moom moom yëfam donc Dieu prend que ce qui lui appartient yàlla li mu moom rek la jël ah soxlawul dara lu dul waaw kii maa dama koy jël diw maa ko moom damay day ñëw suma wet waaye yàlla na yàlla def tey jaaga moomu dëddu tey yàlla na ko yàlla wanale ak coon balaagu sekk wanale ko ak ak ak ak ji muumi wanale ko ak bépp mbokk jullit bépp mbooloo mu jullit bu mu fa fekk yàlla na ma yàlla defal loolu man Idrissa Diop ak loolu dama koy wax nag au nom de tous les acteurs culturels parce que ñëpp ñëpp seen xol tooy na ñëpp jaale nañu Wally sek wax nañ ma wax yu yu doy waar ay ay centaines et de de d'artistes ñoo ma man depuis bi ñu xamee bi ñu amee nouvelle boobu woo ma dama daal suñu jàll daal teg nañ ko sa loxo yow Idrissa Diop pour nga teg ko waaw ci ci ci mbokku Faramareen yëpp mbokku Sekkeen yëpp en plus ci ci kaw nag muy Wally teg ko ci loxoom faatu yàlla mooy mooy tàggatal mooy mooy tàggatal boppam nit kenn mënu ci dara Wally xam na loolu bu baax xam na ni yàlla mooy jël li moom du moom rek ay famille yu bari loolu dal na leen ay ay parent ay jullit yu bari loolu dal na leen waaye dafa xam loolu ba nga xam ne boo ko jotee ndeysaan sérénité boobu mu àndal man daf ma daf ma daf man loolu te sérénité boobu mu àndal dama koy xool ba yàgg ma ne kii am na lu yàlla def ci moom Wally Seck xam na ni wéet na waaye Wally xoolal wéetoo de na yonent bi sallallahu alayhi wa la mu waxoon saabaam yi rek loolu laay répété waat ba Waly Seck ne ko yonent bi xam lan la waxoon daf ni man maa ngi nii maa ngi dem waaye yàlla du fi mos a jóge yàlla du mos a dem donc loolu Waly laa koy wax waaw jaaga dem na avant Thione Seck dem na Moumi dem na tey jaaga dem yàlla na jël lépp teg ko ci loxo subhaanahu wa taala mooy rek li lépp yàlla dina rek rek la na ko sax ba pare mais boo jotee pour revenir ci Wally sek boo ko jotee au téléphone nga xam ne Wally am na lu yàlla def ci moom c'est-à-dire dañu papa ñàkk nañu de xool la muy wax gis nga wax jooju dégg nga dégg nga fi may waxee dama ñàkk nañu de ba pare teg ci na ñàkkati nañu de donc am na loo xam ne euh, ñu ngi naan xale waaye am yuqu mag moo nekk ci moom parce que dafa am loo xam ne kooku yàlla moo ko moo ko moo ko tabaxee noonu Wally Seck très courageux surtout le mot très courageux très croyant ku gëm a noonu xale bu gëm dama naan ko sax mag mu gëm nga yow wala xale la waaye am na lu lu mag lu nekk ci yaram bi lu nekk ci moom boo ko boo amee njàngat ñaangat laa wax de nga xool Wally Seck bu baax jàkk ci bët ni di xam ni kii am na lu yàlla def ci moom loolu il faut ñu bàyyi ci xel lépp ba ñu ko jotee lépp teg na ko ci loxo subhaana taala suñu borom parce que c'est vrai que yaayam moo doon dernier repère moom boo gisee ni mu amoon complicité ak yaayam xam nga am daan foo ak moom naan ko baag Mouhamed koo gën a bëgg Wally Wally moo baax di foo ak yaayam nii ne ko waaw man ak Mouhamed koo gën a bëgg maa ngi dem de bu ma demee dootuma ñëwati mënoo ko demal yéen ñaar ñëpp laa bëgg yéen ñaar ñëpp laa def sama xol noonu complicité boobu mu amoon ak yaayam te xoolal tey jii nii dina ko am ak doomam moom Wally Seck dina ko am ak soxnaam soxna si ay dara dana ko am ak mbokkam yi fi ne ak sëram yi fi nekk ak sëru sëru yaayam yi fi nekk dina ko am loolu dana continuer di am cette démarche là parce que ku ku ku ku ku mën a dékku la Wally Seck waa ju mën a dékku la mën a dékku waaw moo tax ñuy jël tey jii nii njaalu Sénégal yëpp man du wax njaalu Sekkeen wala Faramaren waaw njaalu Sénégal yëpp lay jël man Idrissa Diop teg ko ci loxo Wally Seck mu teg ko ci loxo mbokk mbokk yëpp parce que waali du waali sekk du waali faramaaren rek wala sekkeen rek wala non waali waali Sénégal la ne ko ñëpp xame noonu donc njaal moomu maa ngi koy jël au de tous les acteurs culturels au nom de tout le Sénégal sa teg ko ci loxo waali di la wax waali il faut nga am lecture boobu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi amoon ci saabaam yooyu daf leen ni man maa ngi dem waaye am na kenn koo xam du dem mukk ci àdduna lépp day dem dem ci boppam sax day dem waaye yàlla du mos a dem donc jëlal lépp nga dénk ko yàlla suñu borom yàlla defar na lépp ba pare di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu jël yërmandeem teg ko ci loxo jaaga mi dem tey teg ko ci loxo borom këram boobu dem il y a teg loxom si ci moomi mi dem parce que ci cadre boobu lañ nekk ñañu fekk foofu ñoom ñëpp yal na yàlla teg loxoom ci kaw julit yëpp xar leen àjjana waaye muumi dénk nañ la yàlla suñu borom dénk nañ la ko yàlla xam na lu tax mën la coppet la kaay fii sama wet xam na xam na bu baax a baax xam na lépp moom rek a xam lépp d'ailleurs moo tax tey ni ngeen fekk fi tiis wi fekk fi métit wi fekk fi naqar wi waaye lépp rek comme ni ko Waly defee comme ni ko Waly Seck di waxee nañ jël yëpp teg ko ci loxo yàlla suñu borom yàlla pare na ba noppi donc loolu daal laa amoon loo xam ne daal maa ngi koy dénk suñu askan yëpp senegal yëpp di ko dénk adduna bi yëpp xam nga loolu est-ce que waa dina am courage wu woyaat encore mais xam nga con sec bi ko jur dañ ko war a dañ ko mos a wax ne ko at yi nga am foog nit ñi ci nit ñi di bàyyi xel ci li nga xam ni yàlla moo ko moomal boppam ne ko yow Thione Seck at yi nga am wax ah, doo bàyyi musique xam nga lan leen tontu ma bàyyi musique yéen ñi may wax ne bàyyi ma bàyyi musique man Thione Ballago Seck cin cin lii kan moo kan moo koy boyal am solo la loolu moo tax nit il faut ñu bay xel ci ne musicien am na man nga xam ni man wër naa adduna bi yëpp tëgg naa ak musicien yi gën a mag ci adduna bi man ñii tëgg naa ak ñoom am na musicien yoo xam ni ils ont quatre vingt cinq ans quatre vingt dix ans loolu dafa am solo ñu ciy bàyyi xel la musique n'a pas d'âge Wally Seck xam na ni day yéegaat continuer la mission bi ko baayam jox parce que baayam dafa jël lenge yi ay lenge la jël jox ko ko ne ko ay ca doxalal dem bàyyi ko fi ne ko doxalal Wally Seck day wayaat bien sûr que day wayaat parce que ñi mu uuf la te bu fekkee ni gëm nga yàlla gëm nga mission bi la yàlla dénk ak complicité bi mu amoon ak yaayam ñu bari dañuy tiit ne waaw kii est-ce que dina amaat kura mais yàlla moo ko moo jox lenge yooyu jaarale ko ci baayam coon coon donc day woy day continue woy dafa war a woy parce que woy la ko yàlla jagleel yàlla moo ko moo def mu nekk ci xolu nit ñi donc bu demee ba yëpp giif ba yëpp wàccaat bien sûr que day jëlaat le train en marche balago wali balago sec day jëlaat le train en marche woyaat bégalaat nit ñi woyaat pour sa maman day woyaat pour jaaga wali sec day woyaat baayam ji Thione Seck day wéyaat pour moom yi day wéyaat pour soppe yi day wéyaat pour ñi ko wër ñëpp day wéyaat pour ñi ko bëgg ñëpp parce que Wally ñi ñi mu nekk seen xol danoo bari ay millions u sénégalais dafa nekk seen xol donc bu bu bu. bu may dégg yenn Sénégalais di wax yenn wax yi man damay jaaxle ku nekk yàlla moo teg un missionnaire yàlla tey moo teg missionnaire bi Wally doon mu nekk ci xolu ay millions mu Sénégalais donc day way rek nañ ko bàyyi mu way rek day wayal yaayam day wayal papaam day wayal muumi day wayal askan yëpp day woyal sénégalais yëpp day woyal woyal adduna bi yëpp ndax loolu la ko yàlla jagleel ko mission donc loolu loolu laa wax man jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf maa ngi lu ma wax sax tàggoo maa ngi leen di gërëm leen sant euh, di sant euh, sénégalais yëpp di sant adduna bi yëpp di naqar bi nag tiis bi moom c'est naturel waaw mais comme ni ma ko waxee rek au début yàlla moo ñu sàkk bu demee ba jël jële fi dara parce que moom mooy mooy moom moo fay jële lu ko neex moom donc di leen sant di leen gërëm di leen jaalee aussi di jaale adduna bi yëpp di jaale sénégalais yëpp di jaale Wally di jaale bu baax yal na leen yàlla xaaree àjjana